ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen jéggalu ci jàgg yàgga jotaay bi moom mel na ne kon lañ fi tënk rek lañ bëgg a tudd tuut rek mu mel ne ko ginnaaw bi fi yendoo ba ngoon mu mel ne kon bi am na solo lool ndax li ci bëggoon te am nañ ko ci te mooy bokk toog solo te xalaat kem ni ñu ko alxaan digalee muy was saawirun fil amri fa izaa xasata fa li ñu ci war def lépp ñun def nañ ko ci li tax suñu borom mooy ñu ngi ñaan nag nañ ko teewee nii tey ngir waajal màggal 2021 ginnaaw bi ginaaw bi joxe ndigal ngir ñu waajal ko ñuy ñaan suñu boroom defal ñu ci ndam ba li tax ñu daje fi te mooy lu yéwénal jumaa ji ci lépp loo xam ne laaj na ko ci worma ci setal ak sécurité ba ba sëñ am ko ni mu ko bëggee. dinañ soo ñu tam ñëpp maas àndandoo nekk benn ci biir liggéey bi comme ni ko waxtaanee fii comité exécutif bi nga xam ne moom lañ samp itam daayira bu ne am ci ñetti nit. ñooñu tam ñu ngi leen dénk tam ñu sàmmante ak li nga xam ne moom lañu ñu war a taxawal ci defe naa bu ko defee rek liggéey bi lépp mën naa jeg jaar yoon boo sa bureau comité directeur bi moom mi ngi fi naka jekk dana dox kenn ni mu baaxoo doxee jege leen lool waxtu woon tam ñi ngi fi ba lépp loo xam ne lu ngeen jaaxaleel mën caa dellu ndax ma xam ne xidma day taxaw fii ci jumaa ji nopp tam taxaw sintuwaa gën a yëf la ca kër Sëriñ Tuubaa mooy gën a kilifa diine yi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi bu ko defee waañ wi itam nag ñu ngi sàkku itam ñëpp ñu fonk su ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo ko itam maas ko gën a gën koo waajal bàyyi na ko xel lañ la yoon ci nag daaw suur ko ci ceeb ren ñu def lu ëpp ci loolu lañ bëgg itam ñi fi nekk itam nag bëgg nañ itam nag ñu dund màggal gi baax baax am furo ju doy ak boisson doy ak ndox mu doy loolu nag kenn ku ne xool nag la ca wàllam mu def ko ci kon nag li wax daal mooy yëf yaa ngi noonu kon na ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ci ak jàmm lépp loo xam ne yéene ko ñu def ci def ko lu kawee suñu njort noo ngi jégglu ñëpp di soññ ñëpp su ngeen demee ngeen gën a waajal baax baax maa doon xel ma dana indi ay ndaw ci yéen ko ni ko waxee léegi ñoo xam ne commission commission culturelle bi waajal nañ leen ngir lépp loo xam ne mooy la bërëbu jumaa ji lépp loo xam ku nekk jumaa ji moom nga fi war a nekke nga xam ne kon ñaar daan ci daje kon mu ñun ñi taxaw ñi xam ñoo fi ñëw ci ëmpale wala boog ak xir jàppale bañ fàtte waaye lu mën di xew ñaar rek am moom ki xam ak ki xamul léegi nag ñun ñu fi nekk suñ dajee ko xamut dañuy jiima eh, yaru rek defar suñ jikko ba man jëfante moom jëfante ni bu rafet ndax suñ tubaab li mu bëggoon li mu daan digle mooy nañ jàngal ki yar ko su su ñaari bu mu daje mu taamu yar ba kon nag nañ bàyyi xel ci ñun li ñu war def ko mooy yar bu ma sëkk ak ku teggin ak ak dal ca xam ne ñëpp fii ñëw ñëpp ñëpp fii ñëw ñëpp nit ñi ne ñëpp fii ñëw waaw ñëpp fi ñëw kon nañ a bàyyi xel bu baax a baax ak kenn ku ne ak toolaay bi mu fi ñëwee kon ñoo ngi jégalu